ngir ngeen di jot suñu vidéo nag foo leen toll ci biir réew mi wala bitim réew da ngeen di abonné fii ci Farokh TV ngir mën a jot mbooleem vidéo boo xam ne mën a xam mbooleem loo xam ne dina xew fii ci biir réew wala bitim réew مكبري السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أنا بني سنتي أنا بني فيون أنا بتمني غرم أنا سيدي راجع أنا دي سنتو أنا سرين سنو أنا الشيخ محمود أنا مانداو يعني أنا أكتبير أب أنا مالانا سيدي أنا مانداو ييب أنا di wax assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñu ak euh, mboolem membre personnel bu koy liggéeyee ñun ñëpp ñu ngi nuyu te di ci weer yi euh, di tooñ sama doomu bàjjan euh, Aliou Deme kon xam naa ne moom yaakaar dina koor di jeex <laughs> ndax dëgg yàlla waaye nag jàmbaar la ku baax la. 2000 2008 mm, bi may dem Golf de ndeysaan moom ma yeb si taxi bi yóbbu ma ko foofu ma nekkoon première personne bi njëkk taxaw ci Golf de. ci boobu ci Dakar fii ci rajo naan da ngay wax ci histoire bi si de la rajo ndax gannaaw ko suñu mbay taaka defee. Uh-huh. loolu yëpp di doon ak bu baax a baax. Uh-huh. ak bu yokk ba fii ñu toll nii tey nga xam ne wax dëgg yàlla seen YouTube yi yeeg lépp bëri na digital bi fu waay toll léegi mën nga. mën nga tàppe rek xam lu bari ci si rajo Ndaw uh-huh. euh, kon Aliou jërëjëf yéen naka jekk yaa ngi woon ci waale yàlla yàlla fay la ak yàgg yi nga àndal ak sama cameraman bi nga a yàgg yàlla boole ñu ak moom mu am teggin ak ni muy jëflante ak ñun wax dëgg yàlla euh, wax dëgg yàlla ñu ngi gërëm bu baax a baax li ñu bëgg waxtaan nag tey mooy ci doomu aadama bi ak euh, lan mooy koor ak lan mooy li nga xamante ni mooy ngëm dëgg-dëgg ngëm ak ki ngëm dëgg naka war a comporté woo euh, yëpp nañuy sukkandiku ci alquran karim ak hadis jullit fekkee ni nii amul tey jii ci weer koor lañ nekk mënuñu wax dara te duñu da tudd koor waaye dafa jaaru waxtu wu nekk nit ki moom dafa aajowoo ñu koy yeesalaat doomu aadama nit yàlla bindee ruum ko yàlla def barab boobu si boppam pour ruu gi di am visibilité di mën a gis kéemtaanu yàlla yi ak mayu yàlla yi pour mu mën gis faw ruu boobu noonu wax dëgg yàlla euh, ñu koy fompaat barab barab bi gi nekk jëmmi ruuw moom aajul fomp kenn mënu ko fomp suñu borom moo xam fomp ko làq ndax te sax lu tuuti lañ ci war a wax ndax yun saa islam bi ñu ko laajee ruuw euh, daf nañ wax ne nañ bàyyi ba bàyyi nañ ba suba incha allah rabbi suñu borom daal di suñu borom daal di ko ne wayes alunaka ani ruuhi kulli ruuhi min amri rabbi wa maa utitu min ilmin yow di Mouhamed ñu ngi lay laaj mbirum ruuw waaye wax leen leen de ruuw daal mbirum suñu borom la

teg ko fa ngelaw li di ko fa fekk suuf si di ko fa fekk naes nies bi di ko fa fekk clim bi di ko fa fekk c'est butéel boobu nag dina dem ba nga xam ne nii euh, nees bi ni muy demee ci moom dina def genre ndox ndox moomu poussé la ñëw teg suma kol bu ko day di fatt di fatt di fatt di fatt bu fatt ba ni kës mooy summun bokk mun moom yun foofu nga ayar jow gi ngay dégg ci bàqar su ñoom ñi nga xam ne gumba nañ tëx nañ luu nañ mooy ñi nga xam ne duñ dégg waa duñ gis waar booy duñ nangu waar taxaw julli ñaari rakka sax yéeg ci montagne di daw ak di wàcc ba ba ba ba sonn moo leen gën a yomb sax ñi ñi ñi ñi ñi ñiy déglu ay waaraate boo xoolee kon moo ñi nga xam ne ni butéel boobu kon ni mu mel butéel boobu bépp wulu bu ne ci kaw suuf rek ku dul yonent bi rek noonu nga mel ak koo mën doon nag sa sa jëmm ndax fi ñu dugal wuji mooy jëmm

day dugg ci yow au lieu que yow ngay jóg leer mais leer muy jóg ci yow dégg nga bu mel ni euh, benn rek lampe pétrole boo taal jël mees bi dugal ci cos almique taal ci na muy xëccee pétrole bi du taal noonu la leer bi yéegee ci yow loolu nag li koy def ci doomu aadama mooy lan mooy lépp li yonent yi dikkee li yonent yépp nag mooy li nga xam ne mooy Seydina Muhammad ni ci mujj ñëw sallallahu alayhi wa mooy li mu dikkee mooy diina yonent bi fu mu si ñëw diina nga daan andi mm-hmm. diina ji nag ci ci gën inna diina xendalaay islaam diina fa yàlla mooy islaam kon nag islaam nag mënta wér mënta taxaw loolu nga sukkandiku ci alxuraan ak hadiis ak koo mën a doon ak loo mën a yaakaar ak foo mën jógee diina moom islaam islaam nga xam ne mooy mooy istaha bayna naas diggante nit ñi seen biir ni ñuy jëflantee ni ñuy demlantee ni ñuy dikkalante ba kenn du mën a lor sa morom kenn du la lor laa dara wala diraar loolu islam la islam nag li koy diriger mooy imaanu billah nga gëm ne yàlla muy buur moo fi nekkoon nag jëkk te du fi mosu jógee laa bat xalil xaqi jëlla mën noo xëddamun walanti xalaq yaa waa sama yàlla tàmbaliwut fenn fenn moom suñu borom waaye yemul fenn suñu borom nga gëm lan mooy yonent yi gëm ni yonent yi mu yónni pour ñu ñëw yàlla suñu borom moo leen yebal gëm malaayka yi gëm téere yi gëm li nga xam ne ni mooy dogal bu neex ak bu naqari gëm sawara gëm dee gëm dekki gëm yooyu yëpp nga xam ne yonent yi dikkee nañ ko su ko defee nga doog al imaanu bi nga xam ne imaanu bi xal bi te mooy bu ko defee nga def shahadatu an laa ilaha illa wa ashhadu anna muhammad rasulullah nga seede ne yàlla mooy buur muhammad rasulullahi ndawal yàlla la léegi nag loolu wax nga ko ci làmmañ waaye dañ ko war a jëfee jëfee ko nag mooy di àttewu ci alquran di jëf ji fi alquran di wax wax alquran fonk alquran xool lépp diina andi nga nangu ko li la diina digal nga def li la diina tere nga bàyyi ko loolu képp koo xam ne jaar nga ci suñu borom dees na la fomp ci poussière boobu nga xam ne laa lay wax ne moo mooy wàcc ci kaw doomu aadama ba fatt jëmm ji fatt xol ba nga xam ne dootu vision ci laxul mahfuz nga xamné ne dootu amati vision ci kéemtaanu suñu borom nit dina dee sax nit dee yalla li tax mu bind dee ak dund ak dee yépp pour ñu ci xalaatee la mais da nga gis koo xam ne nii faalewu dee faalewu feebar faalé faalewu dund day gis kéemtaanu suñu borom gis ko waye du ko mën a reconnaître parce que xol bi si boppam mo mo mo at attunu loolu ndax leer suñu borom nekkul ci léegi nag comme doomu aadama ruu gi fa mu nekk pour mu mën di joti ci yooyu dafa aajoo ñu koy fomp ak di ko di ko kii fomp baa ngeen waaye mooy di ko waar ak di julli di joxe asaka di saraxe di dem di siyaar ci xabru di siyaar ci bàmmeel yi dégg yooyu mooy li nga xam ne day dim dimbale nit yi sa ngëm daf koy yeesal daf koy macha allah daf koy dimbale daf koy suuxat kon nag nañ gën a fonk diina wa ma ataakum rasul fa xuzuuhu lu ñu yonent bi jox nañ ko téye woo naa ko xanu fan oo lu ñu yonent bi tere nañ ko bàyyi suñu bëgg nañ ci jiital yàlla ak rasul yonentam ak ay nitam mooy ñi nga xam ne ñoom doon yonent bi saahiran wa baati nañ ñi xam ko si xam-xam ci jàngale ka ci dimbale nit ñi ci yittewoo jaam seenu texe tey ak seenu texe ëllëg suñu mbëggeel nañ ko jëmale ci ñooñu ndax yàlla kat moo noonu yonent bi ne ko

li koy topp nag li tax nit ki ko topp mooy li ma la wax nii mooy yittewoo lépp loo xam ne diina andi ko lu diina andi wut ñu bàyyi ko fële di nangoo jaamu yàlla te di ko sellal bu baax a baax a baax baax baax waxtu yi ñu nekk nag mooy weeru koor weeru koor di loo xam ne moom suñu borom farta suñu borom la santaane suñu borom bu jotee képp koo xam ne man kaana maridan aw ala safarin faayda tamit ay yàggal xar ku feebar nga wala nga nekk si tukki yàlla nee na mun nga ko compter mm-hmm. beneen yoon nga bul yàlla mayee ngant lu mu téggeeg sew mm-hmm. nga woor waaye koo xam ne ni teewee nga ko mm-hmm. mu ne amun sahida min kum képp koo xam ne ni fekkee nga ko ànd ak wér ànd ak sart yëpp dajee ci yow mun su boobaa na nga woor weer weer nag weeru njëggal la weeru yërmande la weeru ni ma suñu borom nee na man rek may fay koor kenn du ko fay maanaam duglu ma ci kenn kon nag nañ gën a dugg ci loolu gën a fonkaat alxuraan ngir ngeen di jot suñu vidéo nag foo leen toll ci biir réew mi wala bitim réew da ngeen di abonné fii ci Farokh TV ngir mën a jot mbooleem vidéo boo xam ne dinañ ko ngir mën a xam mbooleem loo xam ne dina xew fii ci biir réew mi wala bitim réew